ñooy takk der yi ak farandoy Ousmane Sonko yi ndax ginnaaw bi ñu leen tere li xam ne mooy méga meeting bi ñoom nag nee nañu danañu ko amal par force journal bi nee na en tout cas li am ba de sal Mbàkke daal tàngoona Ousmane Sonko ni ki dem ba mu xëy nag dafa daal di jubali fi nga xam ne maanaam mooy Touba ginnaaw nag bi mu siyaare ki nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall moom Ousmane Sonko daal di fay jugee dem ca jumaa ji nag daal di fay jullee ji journal bi nee na Ousmane Sonko ginnaaw nag bi mu jullee ajuma ba pare ba génn topp naan naan jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba ma ne la jërëjëfe sëriñ Touba yi mel ni tulleeg male yéen kaay gi de enquête xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de sall bëccëgub démb bi tàng na jër fi nga xam ne mooy ci diwaanu Mbàkke ndax ñi nga xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi ñoom ni ki démb ñu doon affronté ak ñi nga xam ne ñooy takk der maanaam jàppante bu métte métte métti moo am ni ki démb gër naa lakkrmasènes yi mel ni tulleeg male waaye pëna yee xeer yi taal mel ni tulleeg male journal bi nee na bëri na ñoo xam ne teg nañu leen loxo am na ci tamit ñoo xam ne am nañu ay gaañu gaañu yéen kaay gi di Sud Quotidien ne ko may ma yeggale ma ne lay gis nga arrestation yi bëri ñu ñu teg loxo waaye nag Sonatel ba dañu ko daal di saccagé dañu ko yàq journal bi ne na Walf Fadjri bi nga xam ne moo ko doon def direct moom tim signalam dañu ko mujjee coupé yéen a kaay gi di Walf duñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba desal Mbàkke na safara si bëri lool ni ki ci diwaanu Mbàkke ak saxar se Mbàkke démb ma xale yi ñoo ko boyel jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy takk deri defante ak ba yu bari daal di koy topp station totale bi ñu ko daal sax-saxe yéen kaay gi di nee na ni ki démb maanaam la boo xam ne tàngoon na jër ci diwaanu Mbàkke mën na la affrontement yi maanaam day am na ñaari station service yoo xam ne dañu ko daal di attaqué dañu ko songu yéen kaay gi di enquête Cheikh Tidiane nee na Sénégal réewum démocratie la du nangu nag dictature di am loolee du ko nangu tey du ko nangu ëllëg ñi nga xam ne ñooy leader yeewu askan wi ñoom Mali Gakou ñoom Déthié direction bu mairie bu Mbàkke gars dañu ko mujjee taal yéen i kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñoo en xam ne waa Pastef moom la ñu bëggoon a amal ni diwaanu Mbàkke ginnaaw bi ñu ko teree gars yi dañoo forcé jàmmarloo ak xam ne ñooy takk der yi gërë naan lacrymogène yi mel ni bi nee na wal fajira dañoo coupé signal waa Sénégal ñoo ko coupé lu toll si ñaari fan yéen i kaay gi di diggante Mbàkke ak Touba foofee tamit ñi nga xam ne ñooy xale yi ñoo fa nekkoon doon jàmmarloo a ñi nga xam ne ñooy takk der yi yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Sonatel dañu koo daal di saax-saaxee boutique dañu koo saax-saaxee diggante Mbàkke Touba ak sa Mbàkke Touba ñi xam ne ñooy manifestant yi ñu doon manifester ñoo ko mujjoon a récupérer moomee vent yéen kaay gi ne ne station Kër Xaarim dañu koo taal journal bi ne ne Ousmane Sonko dafa forcé li nga yi dañ leen a sànni ay grenade lacrymogène journal bi xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko niki démb la ñuy xaar ndigal la ñuy xaar Serigne Assane nee na jamono ji yàlla sun borom ci boppam moo ñu indil Ousmane Sonko ndax nag andiloon nañ ñu Mamadou Dia ñu sàggan ñu andil ñu Cheikh Anta Diop ñu sàggana ñu andil ñu Kéba Mbaye ñu sàggana yàlla nag andil ñu Ousmane Sonko bii nag mooy suñu dernière chance bu ñu rëccee rek du baax kaddu sëriñ Assane Mbacke la waaye moom démbu teg nañu ko loxo yéen a kaay gi dalee si koo xëy di ñu xibaar naan ñoo en tout cas daal jàppante bu métte métte métte fu ko ak ñi nga xam ne ñooy takk derrière journal bi nee na acte un du gatsa gatsa démb la commencé ci diiwaanu Mbacke ndax nag Ousmane Sonko mi nga xam ne moo woote gatsa sa diiwaanu Mbacke yéen a kaay gi di direct news xëy di ñu xibaar naan ñu ni ki démb ajjuma la joo xam ne lëndëm na lool ci diiwaanu Mbacke lu ëpp ñett ñetti waxtu lopp ñetti waxtu yoo xamante ni ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñoo ngi jàmmarloo ak farandoy Ousmane Sonko yee ma la xale yi gis nga démb ma ne la détermination bi nga xam ne moom la xale yi àndal maara day talee waaye tamit stratégie bu garaaw la xale yi teg démb xale yi mën na la si yoon yi dañoo baara yoon yi ba pare di taal ay pneu su ko defee policiers yi duñ mën a jàll frein policiers yi la xale yi def mën na la moomee fan lu toll ci ñetti waxtu yoo xam ne jàppante bi taroon na lool gër naa la kërmasani di naaw a kaay gii de daal di xëy duñu xibaar naan en champ de bataille mën na la Mbàkke démb mën na la toolub xare la Mbàkke nirool de moom la ko gars yi soppar ñu di kii démb convoi bu Ousmane Sonko dañu koo daal di bloqué ka ay grenade lacrymogène waaye nag dafa mujjee forcé ba tenir am mitinam yéen a kaay gii di lii quotidien naa ñu tere yi nga xam ne ni ki démb daat nañu koy tere Ousmane Sonko ñi mu àndala gars yi dañu koo salfaañi ko sa àll ba ba pare nag oto ma askan wu bare bare bare bari daal di génn topp ko yéen a kaay gii di la quotidien yor yora nee na Mbàkke acte un résistant résistance bi commencé na ma ne la résistance bi nga xam ne Ousmane Sonko woote na ko journal bi nee na résistance bu njëkk bi acte un bi démb la commencé ca diwaanu Mbàkke yéen kaay gii de la regard nee na acte un confrontation am na nit ki démb ca Mbàkke ma ne la confrontation bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko woote acte un bi démb la woon de ca diwaanu Mbàkke yéen kaay gii di bés bi nee na bu ñu waxantee dëgg la fi xewoon mois de mars jamono ji mooy xeeñ de yéen kaay gii di 24 heures nee na Ousmane Sonko meeting bi daf koo mujjee soppar kaay gii leen foo nee kenn musul gis li nga xam ne moo xew Mbàkke ni ki démb Guy Marius Sagna nee bu ñu waxantee dëgg maanaam njiitum réew mi Sénégal di amaat Ousmane Sonko la tudd yéen kaay gii di leen si ko nee na maître moom lan la def ordre des avocats yu Sénégal ñoo ko suspendre fas yéene ko yóbbu nag ca conseil de discipline ba yéen kaay gii di bés bi na njiitu réew mi di président Macky Sall jël nag ay sapeur pompier yóbbu leen ca diiwaanu